Euh, majeure partie ñi nga xamante moo di les représentants du Sénégal actuellement ñu ngi fële nga xamante moo di ca ca Paris mhm. waa est-ce que ma nga nga li nga xamante moo di état bi jamono ji laata euh, euh, affaire di tàmbali dans deux semaines waaw xam nga compétition jeux olympiques moom boo koy préparé pendant quatre ans mm. nga dem ba mu des deux semaines pratiquement ci dernier réglage yi rek ngay nekk mm. dernier réglage yi bon les trois gosses qui se sont qualifiés notamment Cheikh Tidiane Diouf Sali Sarr ak Louis François Mendy c' est des donc yoo xam ne pratiquement seen entraînement yu ëpp France lañ koy defee. Mhm. donc dañuy dem ak a ñëw di def ay euh, meeting di daw euh, un peu partout dans le monde donc euh, tàmm nañ compétition yu mel yu mel nii. Mhm. maintenant ñoom ñi ngi préparé psychologiquement avec leur entraîneur. Mhm. di préparer continuer aussi seeni entraînement parce que diggante bi beneen compétition xaju fi. maintenant li ci des rek mooy que daf leen waroon recevoir. Mm-hmm. avant daf leen war a recevoir avant ñuy jox leen médaille jox leen drapeau bi drapeau plutôt. yaa ngi dégg def d'une pierre deux coups comme bi ñu jógee championnat d'Afrique ba léegi recevoir uñu leen. te mm-hmm. ce qui mieux c'était bi ñu jógee championnat d'Afrique ñu recevoir leen parce que ku def lu rëy. ñibbisi. Mm-hmm. da nga ko war a recevoir même boo ko joxul dara. même boo ko joxul dara moo tax man may alerter ne leen le ministre des sports en question il ne faut pas dans le revers de leur de de, de leur prédécesseur mhm. parce que loolu la at sportif yi doon kaas te mi ngi commencé di am recevoir des athlètes yuy soo ko ñëw ou bien des sportifs qui ont compétit sur le plan international ñibbisi mhm. ça ne absolument rien mhm. même boo ko joxul dara ça ne coûte rien du tout pourquoi on ne fait pas pourquoi ça traîne on n'a pas compris vous vous sentez minimisé quelque part euh, oui bon ah, xam nga ah, bon d'une certaine façon pas ñun en tant que tel parce que euh, ne serait-ce un an yi mujj on a connu cinq ministres. ok mhm. bi ma taar ba demee ba léegi. on a connu cinq ministres. donc ñun lu ñuy démoraliser du lii. Mhm. nit ñuy ay sportif lañ du ñu découragé. Mhm. parce que. et dans tout ça le xam nga le CNOSS moom rôle am mi ngi koy def mooy su gisee athlète boo xam ne kii il est prometteur. mu accompagner ko. Louis François Menn konos mi ngi koy accompagner mhm. Sali Sarr mi ngi koy accompagner ainsi de suite Cheikh Tidiane Diouf donc côté boobu ñu ngi koy accompagner donte li ñuy def mën nañ ko gën a dolli parce que tey ils ont accompagné trois athlètes ñoom ñu dem nekk champion d'Afrique qualifié Jeux olympiques mhm. bu ñu accompagné woon dix athlètes aussi ce sera le même mhm. parce que les capacités sont là les possibilités sont là les gosses sont là maintenant xëy na du ci côté CNOOS CNOOS du yëkkati xaalis di la jox parce que alerte dafa xam ne boo xam ne boo fa tollee fédération wala aletu club wala aletu kii aletu état du Sénégal lay toll. Mm. parce que bu ñu demee tey Jeux olympiques mais bu ñuy wax luy François Mendy kenn du wax club kenn du wax fédération. sénégalais la ñuy wax. Mm-hmm. te loolu rek parce que la ñuy wax dafa am des sports de représentation. Jeux olympiques bu fa Sénégal teewul Jeux africains bu fa Sénégal teewul championnat d'Afrique du dëkk boo xam ne am na gëdd ci sport te nag sport li mu mën ci fësal réew li mu mën ci dooleel réew mhm. am na réew yoo xam ne sport rek moo tax ñu xam ne mhm. loolu dirigeant bu ko xamul ah c'est vrai parce que en 2002 wax dëgg yàlla Sénégal siiw na si àdduna mais bien sûr mhm. Sénégal bu ñu ko xamee en 2002 football moo tax Jamaïque bu ñu ko xamee athlétisme moo tax Kenya bu ñu ko xamee mille cinq cent dix mille moo tax. mais parmi parmi ñi nga xamante ñoo qualifié JO yi. si kan ngeen gën a am yaakaar ne war a mën a décrocher li nga xamante ne moo di une médaille. parmi ces trois xam nga nag moom médaille Jeux olympiques. am yaakaar am yaakaar rek am ah, nga médaille Jeux olympiques <laughs> du yëfi gone. Ah, ah, non suñu objectif la du bu ñuy am objectif. mais dañuy on vise au. Mm. lu ñu mën a am jël. Mm-hmm. mais il savoir raison garder. Mm-hmm. booy yi c'est leur première qualification. Mhm. Jeux olympiques nee naa la jox naa la histoire sax. boo jàng quoi. alors bon pas dañuy dem pour compétir dañuy dem di def li ñu man yëpp bien vrai que dañuy wax rek soit on gagne soit on apprend. Mhm. soit on gagne soit on apprend mais engagement détermination la ñuy demee dañuy dem pour am médaille mais comme je te dis il faut savoir raison garder xam pour cent yi daw nañ ko benn yoon finaliste demaat deuxième fois finaliste soit am médaille wala troisième fois. Mm-hmm, mm-hmm. président seen na ko ñu wax da dem pour participer non xam nga déjà le fet de participer aux Jeux Olympiques n'est pas donné. ah c'est loolu victoire la quoi. le fait de participer aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. n'est n'est pas donné loolu rek c'est une victoire déjà. maintenant le fait de gagner une médaille c'est une autre paire <laughs> bu ngeen di suivre Jeux olympiques. di ngeen ko xam. mais nag cela ne veut pas dire pour autant que ne athlètes dañuy dem pour être des figurants de. non non non non non leur mot à dire. Mm. nag kenn du joxe loo loo loo loo loo mënul Léo François. Mm-hmm. Euh, bi mooy deuxième participation. Mm-hmm. on espère de lui qu'il sera finaliste. Mm. te final final moom bu ko bu ñu ko xasee barang 110 mètres et eh, yow gis nga ko ni muy dawee dafa gaaw. trop 13 parce que athlète bi ñu yaakaar nii mën naa def faux départ. Mm-hmm. keneen ki mën naa ah. nelaw ci bloc yi. Ah. lu nekk mën naa xew. Mm-hmm. maintenant on croise les doigts et on espère que peut-être dinañ fa am benn médaille mais suñ ko amut aussi. Mm-hmm. cela ne veut pas dire que soo demee l'essentiel on attend que ñu def jom en bon sénégalais. def fula joxe li ñu am lépp ba nga xam ne foo toll ci Sénégal da ngay séen kii def na lim man yépp mais que jox nañ leen lépp. waaw bon joxuñu leen lépp bi ci war. amul moo tax lii François Mendy dafa dafa nekk sénégalais rek nekk nationaliste bëgg Sénégal mais mais kenn kenn kenn kenn kenn munu ko imposer dara kenn munu ko imposer dara parce que préparation bi si war defu ko dugal na budget depuis un an ba léegi kenn financé wu ko il se prépare seul il se prépare seul avec son entraîneur mm-hmm. avec ses moyens parce que meeting yi muy def di gagné fii ak mbokkam yi koy dimbale. Mhm. ak CNOSS ak fédération. loolu lay dundee mais loolu. Mhm. loolu demul Jeux olympiques. Mhm. boo xoolee ñi muy jomante nga xam ne ñoom ñooy taxawandoo ci ligne bi. depuis un an depuis un an ñi ngi préparé wu. seen état jàppale leen. gis nga Côte d'Ivoire li ñu génnee ci xaalis pour ses pour ses pour ses 700 millions. pour ses qualifiés athlète bu ne 70 millions. nga war a dem nag war a jongante ak ñooñu état du Sénégal jox la dërëm. c'est c'est c'est aberrant kooku kenn mënu ko imposer dara mais fi ñu amee espoir mooy ay sénégalais lañ te dañoo bëgg Sénégal te li ñuy def xam nañ ko gëm nañ ko